sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam xamal nanu ne nu moytu leen tooñ ndax tooñkat ay lëndëm la yowmal qiyaamati moytu leen tooñ lu tax ndax tooñ lëndëm la yowmal qiyaama ay lëndëm lay daje ci yow bisab yowmal qiyaam mbokk yi ci yàlla ab jullit bu dem ba yowmal qiyaam fekk fa lenn lu ay lëndëm kooku lan ngeen xalaat ci moom ñu war a ñu war moytandiku tooñ ak ay anamam ak nu mu mën a doon ñu moytandiku ko war ko sori tooñ mooy nga jalgati àqu keneen li gën a rëy ci tooñ nag mooy bokkaale yàlla tabaraka wa taala ndax inna shirka la zulmun azim bokkaale mooy tooñ gi gën a rëy gi doomu aadama tooñ kan nga tooñ yàlla moo tax mu gën a rëy ba tey ëmb na tooñ jaami yàlla yi bàyyi devoir yi nga xam ne moom nga war a def jaay nit doole ci wax jëf foqarti ay àqam teg ci kawam loo xam ne jaaduwul walla wax ko loo xam ne jaaduwul walla noot ko ay xeet yu baree baree bare bari la moom tooñ yenn saa nga gis ku am mooy tooñ ku amut wala sax mu am safaan ki amut tamit ba ci biir néegu sëy yi léeg nga gis boroom kër gu jaay soxnaam doole noot ko tooñ ko yenn saay soxna tooñ ba ci njaboot gi léeg-léeg doom tooñ léeg baay tooñ kenn ku nekk ci ñun kudul dul ku yàlla musal mën nga tooñ ndax tooñ ñetti anam la am na tooñ goo xam ne yàlla du ko jéggale am na tooñ goo xam ne sunu borom dina ko jéggale am na tooñ goo xam ne ki nga tooñ dong moo la mën a baal waaye kenn mun laa baal kudul ki nga tooñ bu fekkee tooñ gi nga xam ne yàlla du ko jéggale mooy bokkaale ku bokkaale yàlla moom pare na su ko deewaalee safara la jëm ko ko amul njëggal su fekkee tooñ gi yàlla di baale mooy yow mi tooñ yàlla ci taardeel waxtu ci loo waroon def ci say warugar yi jib jëm sa digganteeg sa boroom nga lànk bañ koo def ñàkk bañ a woor ñàkk bañ di julli ak ya ca aju kooku yàlla nga tooñ su ko neexee mu jéggal moom yàlla tabaraka wa ba ca tegu mooy tooñ ngoo tooñ jaami yàlla yi kooku yàlla mënu la kaa baal jaami yàlla yi dong ñoo mën a baal looloo tax yonent bi alayhi salaam naan xam ngeen ku perte sahabatul kiram ne ko waaw mooy ku doon jaay njaayam daa daanu daa pert perte taabal ba walla bitig ba wala place ba daa di tëj kookoy ki perte yonent bi ne leen déedéet kooku pertut ndax kooku buñ ko dimbaliwaatee mën naa taxaw barab ba mën naa ubbiwaat taabal ba mën naa taxawaat ki perte dëgg dëgg dëgg mooy ku julli ku woor ku joxe azaka ku aji màkka xeetu yu baax yëpp waa ji def na ko waaye dafa am ñu tooñ dafa am ñu mu yoreel ay àq mu daal faatu yowmal qiyaam mu dem dajeg ñooñu ñooñu poñe ko ne ko dangi fay ñu jël tiyaabaam julli yooyu koor yam defoon saraxiya yu baax yam doon def ñu daal koy séddale ñi mu yoreel àq ñu séddale ko ña mu doon tooñ ba mu jeex tàkk te des na ña mu yoreel des na amatul lum leen jox ñu daal buub bakkaaru ñee sëf ko ko laa gis ngeen ndeke baaxul tooñ baaxul soo tooñee nit ba dajeeg moom yowmal qiyaam sa tiyaaba la yàlla di jël jox waa ji su fekkee amoo tiyaaba mu jël bàkkaaru ki nga tooñ sëf la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na waa ji ba mu amul tiyaaba ya mu joxe comme séddale na ñëpp jeex na te des na ñu jël bàkkaaru gaa yi sëf ko ko mu nekk ay bakkaaru kese ñu daal di koy sànni ci safara jahannama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kii moo tooñ kii mooy ki perte mbokk jullit yi kon tooñ baaxul ab jullit loo am am doole loo am am kattan xamal na yàlla dafa araamal tooñ yàlla nee yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jacaltuhu baynakum muharraman fala tazaalamu yéen samay jaam man yàlla maa leen ëpp doole maa leen mën maa leen sàkk may seen boroom waaye araamal naa ci sama bopp tooñ def naa tooñ muy araam seen diggante kon buleen leen kon doomi mbokki julit yi ab julit na moytandiku tooñ bul am doole rek am say kattan am sa pexe am sa mën-mën yor sa alal rek ne lu ma neex def déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man axaza sibran min al ardi zulman tawaqahu llahu iyaahu yowma alqiyaama min sabi aradin allahu akbar yonent alalu jàmbur suufu jàmbur nga jël ko ci doole ndax yaa ko mën fekk dëkk ci këram nga toj ko fekk yor teeneem nga nangu ko jaay leen doole ndax yow am nga alal mën ngaa jënd attekat yi mën ngaa jënd nguur gi mën nga mën nga ba nga fokkarti alalu jàmbur boobu len di bi alayhi salaatu wasalaam nee na ëllëg boo egsee ci yàlla yowmal qiyaam yàlla dina la tënk dina la sànni ci juróom-ñaareelu suuf kon tooñ baaxul jël àqu nit ñi baaxul képp ku jël àqu nit yowmal xiyaam dinañ lay yeew tënk la ba nga ne kaj tëmbal la ci juróom-ñaareelu suuf loolu mbokk jullit yi ab jullit bu xamee loolu nga xam ne dooleem fii la yem ci àdduna nga xam ne say kàttan fii la yem ci àdduna sa mën-mën fii la yem ci àdduna say pexe fii la yem ci àdduna waaye boo duggee bàmmeel rekk lépp leer nga xam ne lépp dëgg la tooñ baaxul nañu bàyyi tooñ tey àddina bi tey jamono ji tey waxtu wi tey nit ñi doomu aadama yi tooñ rekk tooñ guddi tooñ bëccëg maa la mën duma sa moroom dinaa la dumate sama loxo du la laal di jaay nit ñi lu kenn xamul dafa ne doo dee dajeg yàlla wallaay ndomba tànk yi dinañ ko tekki dinañ tekki gara euh, yi tekki daraja yi tekki ndomba tànk yi alal ji dinañ ko bàyyi ginnaaw doole ji dinañ ko bàyyi ginnaaw ñu sang la sang la yeew la dugal la ci bàmmeel nga xam ne lépp dëgg la yal yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.